aoudu billah min alsheytaan irrajim bismillah irrahmani irrahim tey nag noo ngi génne koo xam ne mi yàgg na ci géew bi waaye nit ñi gisuñu ko woon muy sëriñ Mor Kayre ñu bari dégg nañ sëriñ Moussa di ko wax di wax ne dexu Kayre laanaane ak Babacar Sadiq am na fu muy waxeet naan maam Samba Diarra ak Jaxate ak Kayre ñëpp nga jàngoo njàmmi jël seen bayri kon sëñ Mor Kayre moomu la bëgg indi njariñ yi nga ni ne jële woon na ko ci sëriñ bi te bëggan ci nit ñi ñu di leen ko leeral ñu tàmbalee ci xasidaam ji leeral murid saadix nan lay mel bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin tasliman saadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax ca am tey rafetal yéeney xolam bu dee si kar xolam xalam taadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax ca am xelam tey rafetal yéeney xolam bu dee si kar xolam xalam yéenéeri xol ba day rafet lu ñaaw ci moomu ni bi fee tànni ba am xolam bu set tànnee fi góor ya day xalam xalam ci seen saa gën sa jaamu at moo sellaloon ji wax la yoon xam la woon ku wóolu lii baril xalam murit bu xam te xam luwul bul wax ne len na ko xamal lu dul xalam ci ay dogal bu ubbi ko bëti xolam baatin xalam nga koy xamee yàlla xalam nga koy gëmee fu xalamul bu gëlamee moo silmaxaal bëti xolam kuy seetlu door a wax du juum du dox di réccu ak di miim ab seetlukat du sànk moom dof mooy ka jiitalul xelam ku bëgg a maandu dem gis góor gu tooñ gu ceen yëwër day tax mu sax la ko war ubbi koo xolam xalam siraat ak i meloom moo mu tàgg ciy xaraam toroxlu ak tuuba karaam lay diine woo a xalam ab jaamukat bu dee xalam ak xéram ba dootul tàyyi ci xelam ku jaamu yàlla nay xalam kaadir dafay nangoo si kar buy sàkku may yóni xasar bu ñuy nelaw aka bënër moom muy xalam aka si kar bu dee liggéey na di ndigal bu dee nelaw na di ndigal ndigal a koy tolli dëggal gu tax mu sax ci ay si kar bu dee si kar saytaane daw ba ba dee ba duutu bew du sopp addinaa ki xew bakkan baraw ngiri sikkar murit bu dee sikkar du moy buy gis araam di bëgg seey tey jaamu gëm du fay du def araam dafay sikkar yàlla saxal nu ci sikar man loonu mboolem lu nu war dolli nu gëm dolli nu leer yu tax nu sax ci ay sikar naan gi murit di xelli loo di sigére ku tayyi lool di yar murit bu ràpp lool moo di xalam ak a sikar mooy cër ci ngir mi gën a rëy ci turu buur bi gën a rëy mooy tur wi tax ñu di nu roy laay laaya gën ci luy sikar ndem julli doy na ab sëriñ julli yow am sëriñ am yaari fay yu lay jariñ ndem xut na ngay ci kar fii laay jullee ci kay nabi ak ci sëriñ bi kiy ubbee taalaay dagaan yàlla tabee xalam xolam ci kar fii laay jullee ci kay nabi ak ci sëriñ bi kay ubbee kaalaay dagaan yàlla tabee ba buy xalam xolam si kar bismillahi rahmaani sëriñ Mor Kayre bi nga xamante ne tàgg na sëriñ soññee it ci murit bi bi sëriñ bi demee sëriñ Modou Moustapha toog mu tàmbali def ci moom ay bayit ngir njël benn toogaay bi ak ni ñu ko war a jàppalee ci liggéey bu mag bi nga xam ne moom la sëriñ bi bàyyi woon moom muy jumaa ji ak gàllankoor yi nga xam ni tubaab bi defal na ko ci ak na mu ci dem bat liggéey bi taxaw bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa sallama taslima réew mi na yeddu gaaw te defal ban ba jumaa yam ji mooy leen di defal réew mi na yeddu gaaw te defal ban ba jumaayam ji mooy leen di defal mooy ndigalam lii mu leen di mujj digal rawle ci lii bon na bañ ku ko fal ndax dafi daa fal ku daa matal ndigalam kuy wane buy teew lu baax ginnaaw bi defal ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man lée a ko wax waaju koy ginnaawu jubul xaw su bu dëddee ginnaaw ga mel ni kanam xoj ci balaa ay ginnaaw ga jóor la ni bal mbóot mi fi lay des te dàkku nit ñi ko bañ far ñi nangoo sax ci lii mu wax te jubal xej ci balaa sañ bu baax ji gañ ka ko buur bi da koy teg loxoom mu sañ di dogal xaw su ba muy tooge fii fi nun lu mu man te mu jigee buur la dàqe loola dagul luy ndigalam tey jumaa ji daala fi des ci ndigalam waande ñii ni buñ ko jógal ñoo fexe woon xotti lay palaa jëkkoon xew su fexeel taaw bi am beneen bi nu dal réew mi na ngeen sant Moustapha mi fi des moo fexe bii néeg ba seenu lay dina dal yàlla na téeméeri at di yeesu fanam donte ku yëfus jumaa ji bët du ci dal taw bi li muy yéene def la baay bi waxoon itte jilee tax mu jiitu nan ko jëfal néeg bi mbiram suulu wan moo ci taxaw dem borom nguur gi ñaan ko ku ko defal buur bi mayaat am di ñaw la xotti ko won marke beneen wan ko naa ko am di bégal am di dikkak fii palaan nu door a tabax am di sa yaa teral mbiram te dëggal am di sa yaa taxaw dundal ndigalam jël nga ma nooree ña noon bu leen ko jógal man defe naa am nga ndam la gaynde mbubboo weddu tere gaynde xeex ba not nga falul man defe naa am nga mbóot ma xaw su amoon mbóot a saxal ji jumaay ndeneen saxalul man defe naa xeeb nga tey ga buur ya amoon tey gay saam am jotul sa ceex gi ngalal Abdu Malik nguur ga yées na ceex gi ngalal boole nga nguur ak sa ceex gu buur yi amul tey ga caar wane ñu dolli rasiid yées na sa jeex jiite buur la wan bu kumal buuri jullit ndem sa jeex gi ñoo ko amul aste yi lay buur sëriñ bi nag nu jëmal yaa nu fexeel ci jumaay ba noo ngi tabax am ñu ragal daw banaa la doo ko matal booba palaan rëy na am ci leeni payam neel nañu toog léegi bi néeg bi sotti ci teel booba palaan rëy na am ci leeni payam neel nañu toog léegi néeg bi sotti ci teel seetluwu leen yéen ban ba sédd xanaa jooti keneen fàtte taw bi koy tabaxal moo ko natal réew mi buur yi def na murit seex bu nu xam doom ja ñëw na naa ko waxal nit ñi ku leen boole soññi leen ci ndigal addina ji féete naa ko yàlla notal seex ma du lum bee ngi teew di bañ ku ragal mës la janoog seex mu wax ko mbir te matul gëm na magam teew gi ak gannaawama yam fas na lu seex digle woon da koy rafetal wóof na gannaaw seex goneem yi wattu na leen boole na leen tedd nga am ji xel yi na dal moo nañu may loo da baax gi moo fi goneem tàng bu dee dooñu jaam ya teew war a dal yal na panam wii di xaaf bu mat ba tegal lii bu amee teew gi baax ci néeg bi nu dal xaaf mooy téeméer néeg bi sëriñ Mbàkke mooy ki naf ci koñam nee sa sooy dal di kay retaari dal bi ni xàndax la mel ba gan ña dajee xaw ma fi Tuubaa keroog fu gan ña dalul dal bi ni xàndax la mel ba gan ña dajee xaw ma ci Tuubaa keroog fu gan ña dalul xebla gi téeméeri met la yooy tegu na yaatu gi téeméer yi yées na suuf dëggalal neef na kenoom yee baree ni xaaf gu tegal lay taxawaayub manaar yi xaaf la nawal fallu dafay teew sëriñ masamba di teew mbir mu ñi lay teew basiiru teew fa sewul tool bi ñi lay jëwriñam ku yeex du ci bay ñoom la bindéef yi béggee ka dox di dawal yal na nu man am ba def lu leen di bégal ndax ba ba nuy faatu ñoom la dee fi jëfal ñii ku bañee ñoom ba dem fa xaw su barus noon bu mënee gën sëriñ ba leen di sewal doom ku ko bañ leeñu naa la bàyyi ba nga bañ léem nee na ne doo ca bëgg bañ ca watul lii ko waral tey nu jàppe leeni sëriñ doomi kéwél nday ja tëf ci moom mu bëtal mat nañu ay seex ndaxaw su sax ku mu yor sol ko mbiram doom ja kon bu leen ni matul njéem ku leloy xam ba tax mu dox di jëfur astaki naam kon wolof sa léebi fanul njéem ku leloy xam ba tax mu dox di jëfur astekki nampan wolof ta léegi fenul kenn du fi yor mbóoti ban ba doom yi di des jëmtaluwul doomi seex donoom ba bonul tàmbali ngéer dàmbéri wi yaa ko yayoo tundu la kàngam de leen ko kofal benn nga def doomi buur bi mbaate nga def dag di ku def dag dagul te wut ku la fal bul ni xareel naa dameel ba tàyyi damay dambe kajoor tundu rekk pal ga doyul boo ko defee ñàkk tund wi nga yeyoo dambe gi it pat la tax ñu naa la bayil forsa yeyoog fal dameel bu saay bu mu muy dagu doomam ja toog ja jal ba dagul gorsu yeyoog bu saay bu mu muy dagu doomam ja toog ja jal ba dagul teel xam ni doom ja it dana fal gorsu yeyoog fal dagul bu baax ca jagal jag dina gaawal faluk ko laajte fi buur jag dina wax addiyaa bu leen ko sikkal war na ko daa jox sëriñ bi mépp mbayam jox ko donoom ji tabax jumaa ji mu dal weer ya bëtool des ginnaaw ba baay ba demee moom lañu daa jox idaaya saaba wërul bëtooy mooy sayidina fatimatu doom yonante bi def na jigéen waande ñoom ñaxam la di yoon loola la téewul ñu def la yàlla waral taaba ku roy ay jëfam du réer ku ko roy mbiram Mustapha te di wéral moo fi dundal yoonu baay ba ak ndigalam mooy sunu buurub julit bu jiitu jubal moom la waroom nguur gi aar di sàmmi mbiram waajum yiir buur du wax na ngeen ko xëbal luy darajay seex bu daali jënti fi buur tey ma am na jooja moo ko waral am di mbindam ak waxam la buur di wéyal tax na ndawam lum fa wax mu gaaw dëggalal tey masurang lépp lum fa wax ñu dogal kur ba da koy reelalal ko fam ko dalal tey ku woroog Mustafa du tekki fi buur baay ba budul tey la noon na ngeen ko teral dar gi ñu dar Mustafa ba jiitu gi sax dar ga fi haasim daran yonen la nirul ñoo fi daran kay na biite tuubu ñu won ñoo sangi islaam ci seeni gor yu desul seen sange googee taxul ñi gëm ci nabi asima juboon waa Màkka xëy ko nasal moo di wattul Mustafa gi buur bi di def ca dëbb dee wattu diine moo ko réyal wattu gilee tax mu am ñu réere mbiram bay sikki seen ñoñ ni loola ceef la doyul luy sababu su mooma mbir ba xaw su demee buur dani mooy donn baay ba ndax ndawewul lii ca ba muy door lawan ba xel ya demee tey ñu ngi naa àtte bii la yàlla dawal tey ñu ngi réccoo kafar fi moom la wéyan fekk na moom mos la fas ci ñoom lu teral am di mbiram yonte yàlla yuusuf ak bokk yàlla saamandaay bu kenn wérul ndax jaxayaa baati lañ ko sërxali woon waande gannaaw loolu fal na leen di defal seen pexe yooyee taxul la yàlla naroon ca bi moo def gannaaw ba buur bu jubal am di xanaa aabilay ku baax ki nga roy moom ki ni xaabil du man di fay yu rayal ngan ji mbindeefit mbiram ya moom nga ni cas saw turandoo door ga tiis na waandiwil door ga dadaa abbi doomi kaaba ga wan mujj ga bu soob ni nañ ko ubbi afal ker ba ko waay foqatee ci moom la won doom ya ka koy yor mujj ga maa ko ko fal waajani yonnen xanaa keroog la xuraysin di torox moo ne da leen di teral waande ba yonnen na tee màkka la woo kooka ba doom ya lii ko biral xam na ni yonnen waxam ja teew na keroog muy sog a tuub xam ni jëf ja woon woyeful julli ga buur tànn yàlla na dal ci nabi dal ci ku dib taaba am di it na ko julli ga buur tànn yal na dal ci nabi dal ci ku dit saaba am ndiit na ko fal bii sëriñ Mor Kayre dafa fekk sëriñ Moussa Ka way Cheikh Moustapha ci faahilun mafaalatu mu kañ ko ca ba noppi teelu ko nag ci baxru boobu njàmmi góor nga jaajëfe waay kayre kañ la fax di la way yow ki way mbërëm mi fi man yow siraab ca yal na nga wéy njàmme góor nga jaajëfe waay kay rekañ la faf di la way yow ki way mbërëm mi fi man yow siraat ca yal na nga wéy diglu leen te ci amiin njàmme yal na am lu ko doy addinaak alaaxira yal nay dexam di fuur bañ a dey yal na gudd fan di mag muy mayam di wër te du bay yal na mucc lor ci jigéen ñeeg ñi fiy woroomi tubéy njàmme nag ma wax la lu tuut Mustafa kulóor sunu way ngir ku xawtu du maas waykatam du jooy way moo taxit wayam wile moo saf xoram bu dañ di ko yame nga ni suur bëre sax dem ci dey wayam du fi dey nan ko te seenu njariñ nan ko dëgginal dëgg dey ñaari bunt yi taxarey moo taxaw ca ñaar ña du jay buntu xawsu moo fa taxaw buur bi fal def ko ni cey xawsu mooy dundal ndigalam buur yi moonu fii may noonu mustapha yi sopp koy waral dalu noonu mustapha yi taxa sopp koy taxa noonu mustafaay taxa réer sopp koy xamal ku ko roy noonu mustafaay taxa foñ xabru beeg jumaa fi ay moo lu jar di noonu ku seex ban ba def donoom naru ay fakk bàyyi di bañ ku mu jur tey walaay xalaas li fi ay waane lii xewoon na fi kët seefaray Useynu mu rëy may sa tub rasul mi fi gën lii ka bon bu len ko di roy moo taxit ba ñooña du yaakaar amub yonen du nu doy def julit ci noonu ko baax kooka ay jikoom du ma doy ree la digle ay ndimbalam tey pexeem di fiir yu la rey waande buur musal na tafaa ciy bañam ba jox ko lu rëy Moustapha di Yuusufa mbir mooma moo mbir mi le tey ko soob ca bënn gawan ngir bëggan mu suulu ba tey yàlla aar ko génne ko fal loola moom niroona ba tey waande seen pexey xala suux yàlla ay pexem ne fi moo taxit ku fexe kët ñëw na réccu tuub si fi lil ilaahi maalikina kulul hamdi booba ba kayrami lam yàq fu malaasan si waahu raw na fi tey am bi moo fi mat li mu doon démb moo fi daa gëni ndey moo fi gën cosaan ku fi baax ñii nga Mustafa mi nu doy kokke ak Lugaa ko rëyal xut bu jur ko muy gën a xëy moo fi gën cosaan ku fi baax ñee nga Mustapha mi nu doy kokki ak Luga ko xut bu ko muy gën a xay ban ba mooy tëggam bi ko saaseel kulóor gi muy gën a xay askanam wi rëy gi ñu rëy day cosaan te na fi tey loola baay ba moo ko waral tax na ñépp buur na tey fal na kees yi wan ba ñu rëy buur yi def na taalu be tey yii garaama moo ko xewal seex yi séere leen ma fi tey doomi buur yi daan ci réew yeewu tuub nañuy wuyoo mbàkke tey sab danoo ngi yow li nga am kenn amul fukkeel ba du tey ndax li ban ba tàmbuli woon loola yow ñaraas nga ko tey genn maas gi àgguñu woon yaa ngi leen di àggale tey yenn naal yi àgguñu woon yaa ngi leen di àggale tey buur yu rëy yi tuubuñu woon yow la ñuy nangoo dagu tey xaddimaat ba buur bége woon feefa ndar dëggal na ma tay tampi bii mu def ci jumaa ji nga sante wan nanu tey cër ya ban ba séddale woon liy cëram bi moom nga ko tey benn cër melul ni sa bas moo taxit yilif nga nu tey bañ ba jot ngërëm li le tey yàlla moo ko def jëkk tey réew mi seen bakkan nangu leen Mustafa bi seen bamba tey nangu koy waral amu yiw bañ ko mooy waral loru tey boo bëggee ku buur di teral buur teral la ngay fëri tey boo bañee ku buur di teral buur teral la doo jote tey boo bañee lu yàlla di def def defam bi jiitu na tey def defam bi moo nu toppal teg ko njiit na ngeen nangu tey xaw su xut bu moo ko bindoon bëgg doom ci jiite nu tey yàlla def na lii mu bëggoon tax na moo nu fi amee tey nan ko gëm ba ku ko gëm gëm gi mooy sunuy tono tey nan ko fonk moo ku mu jur fonk seex yi koy bége tey fonk baay yi ndaw yi di tànnee fi mag ñi fi yare tey fonk doomi baay yi di tànnee fi ndaw ñi di sang tey fonk sangi mbàkke yi fonkaale waa mbusóobe yi tey maas ko ndaw gi te ñooy doomi seex yi si tey boo bëggee ku baax di la yëg askanam yi fonk ko tey booy wayit wayaale ca askan wi mooy wëllëre tey ñàkk wëllëreey taxa xat am ko moo di yaatu gi tey moo taxit ba way wi ma way sangi mbàkke fal na ma tey Mustapha wayam wile war nay mbégam ku xam dara tey way ko war na ñëpp ni man moonu tee galeeru ji tey donte seetu nii dara jaam kon lu tuuti tëj nu fi tey yal na yàgg jiite fi nun kon nu jaglu nii fëri tey nangu leen te sax ci amiin kon nu tee la noppalu tey Mustapha bégal fegal nga nu bis penc yal na dàq sa tey yaa sa bokki bopp yi ak kayre mi ngi leen bége tey noo ngi sant yàlla ci yow noo ngi ñaan nga dolli ku tey tur fi ñaane lu baax laa la ñaane lay tono tey rabbi may ko tey tono rasta war sëgal ko fi tey nang ko fay sa yërmande rahmaanu ndax yërëm nanu tey yaay rahimu yow yërëmal Mustafa mi nuy rawe tey yaa di maalikun na nga fal am di def ko xawsu bi tey nang ko def ku baatinu yallaahu ak ku zaahiru tey teel dundal mbiram mi la yaay xayyu kon nu naat pile tey teel taxaw ci moom mi la mu kon ñoñam mu ci tey yaaya fii del wattu kii teg ca wattuwaale nu yaa raw ku yow na nga ñee wante nu fiiti nu yaa salaamu yow musalal am bi miinu fii yaa di maani na nga fekk ay na toom te aar ko fi tey saafaral ko cër yaay saafiyan wéral ko fi tey yaay mu yassiran fi baax loola jàpp nga ko tey yaay mu xiitu dund bu doy may ko kii te may nu ko tey yow kariimu yal na nga jox te itiraa nga njiit li le tey yow latiifu yal na nga ñeewante am ndiir nanu tey noo ngi ñaan la yow mi di sakkuuru may ko cant gi tey noo ngi ñaan la mi di sa may ko muñ gi le tey noo ñaan la yow mi di wahaabu may ko réew le tey noo ngi ñaan la yow mi di fattaahu may ko ubbi gi tey sal jalaali màgg nga yow am di may ko màgg gi tey yaay boroom karaama mayal Mustapha karaama yi tey may ko wér gu mat banu man koo jëfal bégal ko ci tey